doxalinu njiitu réew mi Macky Sall mi ne tekk booba léegi kenn xamagul ban candidat la fas yéene tànnal waa coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien ñi njiitu réew Macky Sall di doxale ci jamono ji warta bett kenn lu ko dalee 2012 ba léegi bëri na saay buy del del dogal ci wàllu politique day bett ñu bëree bari mun naa bettaat ñu bëri sax gannaaw li xew keroog ci assemblée national ñu bëri doon séntu Mimi Touré mu jiite assemblée mu euh, mujjee tànn mamadu Mame Diop mu jiite pencum ndaw réew mi nag ñu bëri jàpp xëy na mun naa jiite mun mun naa tànn Amadou Ba euh, wala boog euh, ki nga xamante mooy Abdoulaye Daouda Diallo wala keneen ak euh, keneen yéen kaabine cabinet njiitu réew mun naa génnee feneen mun naa bett ñu bari mun naa dem sax ba tànn ki nga xamante mooy Karim Wade wala boog Idrissa Seck ñu doon candidat yu coalition Benno Bokk Yaakaar kenn ci ñoom mun naa doon tànneefu njiitu réew mi Macky Sall yéen cabinet réew mi quotidien ba tey Alliance pour la République APR ba léegi xamagul ban tànk lay jiital yéen cabinet ba léegi kenn xamagul kan la njiitu réew Macky tànn eh, ci eh, candidat bu coalition benn Bokk Yaakaar ñu ngi ko doon séntu ci fan yi ñu toll yéen cabinet ñibsi na yàggul ca tukkeem ga moom njiit réew Macky Sall ne woon ca Rwanda ñu bari jàppoon ne saay bu yegsee dina jël dogal tukkeeti na ci jamono ji moom njiit réew Macky Sall ba léegi àddoogul eh, ci li nga xamante ne mooy ëllëgu coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yu 2024 yéen cabinet di Tribune candidat yi bari nañ lool te wute kenn ku nekk bëgg a président dégg monsieur le président ci atum 2024 yéen a cabinet tey jii ban Sénégal euh, Sénégal gile euh, ci yan loxo la war a tàbbi ndax loxoy fonctionnaire ay milliardaire wala boog ñeneen ak ñeneen yéen a ndax jotul ñu soppi doxalin geek euh, tànneef gi yéen a cabinet waxtu wa jot na Sénégal tàbbi ci loxoy wóor yoo xamante ne ëllëg dina mun a jëmale réewum Sénégal ca kanam yéen a cabinet di l'info ne lu jëm ci gouvernement bi mun nañ cee séntu remaniement maanaam yeesalaat ko ay coppite mun na caa am yéen a cabinet li am ba des mooy ministre yi kenn ci ñoom du jël ma sax gañ ca wax mun naa jëm ci euh, ka war a jiite tey euh, ministère gi yor wàllub euh, ministère gi ñu jagleel wàllu càmm gi nga xamante dañ ko jox premier ministre ba ba léegi ak ministère gi ñu jagleel wàllu tàggat yaram gañu jox premier ministre yéen cabinet ñaari ministère yooyu le njiitu réew Macky Sall mun naa caa def tànneef saay bu remaniement amee yéen cabinet di l'info xeeduñu ko leeralal yéen cabinet di la mandaane ci candidat yi mun ta doon candidat Moustapha Niass te moo ne de yéeneem doonoon loolee mënatul ne yéen kaa bi ne kàngam la ci wàllu politique moom Moustapha Niass njiital AFP mun na doon euh, koo xamante ne mun naa xalal yoon kay jiite euh, Sénégal ëllëg ndax xereñam ci wàllu politique euh, moom njiital AFP yéen kaa bi ne njiital Pastef Ousmane Sonko réew mi quotidien moom la xëyee Abdou Karim Fofana mi yor kàddu kaddu gouvernement bi mu ngi wax li tax ñu jëlee barrière ya ne woon ca kër Ousmane Sonko takk der ya jóge nañ fa moom Abdou Karim Fofana ne fenn dong lañ ko tënk moo di ne njiitu euh, njiital Pastef ak na mu daan doxalee daanaka doxalin ga moo tàmbalee soppeeku euh, mu ngi doon yëkkati ay kaddu saay su ne di nit ñi ci wàllu fitna doon sakku ndaw ñi ñu jàmmarloog euh, nguur geek yëngu-yëngal ak doxum ñaxtu loole nag la waxatul ba tax na soppeeku am ci doxalin gi bu ñu sukkandikoo ci Abdou Karim Fofana ay kàddoom ci biir yéen kaabi di réew mi quotidien yéen kaabi di libération ne amagul liberté ki nga xamante ne mooy Alioune Sané mun naa delluwaat kaso gën naa jege kaso ci jamono ji sous mandat de dépôt doon lu koy yott yene cabinet ci jamono joo xamante ne Cheikh Bara Ndiaye eh, mu ngi am liberté provisoire bay bi négandiku goo xamante ne eh, mu ngi eh, tukkee ci juge bu deuxième cabinet yene cabinet ci jamono joo xamante ne nag génnagul kasso ci jamono ji doon lu jaaxal ñu bari Walf Quotidien dinaa leen wax li tax jox nañ ko ndigal ak dogal goo xamante ne mun na génn kaso am bay bi négandiku waaye nag ba léegi lépp ngi aju ci parquet bi ga nga xamante ne mooy cay tukkee fii lekk juróomi fan ñu ngi xool lu ci dogal jëmee ci Cheikh Bara Ndiaye yéen kabi di Le Soleil ne lu jëm ci wàllu mbëkk mi immigration clandestine Barça wala Barsax bakkan yaa ngi gën di rot ci géej gi yéen kabi ne la koy firndeel mooy la xew keroog ci waxu euh, Wokam euh, gouvernement bi indi ci ay leeral ne fukki doomi aadama ak juróom benn ñoo ca faatu euh, bu ñu sukkandikoo ci Abdou Karim Fofana mu ngi ñuy dégtal tamit li nga xamante ne mooy gaal amul benn bateau wala marine nationale bu ko mbëkk gar gaa suuxal boppam ah, mu ngi ñuy leeralal itamit li mu sénégalais ne ca Dakhla ca Maroc ah, te nguurug Sénégal ne ci yoonu delloo si leen ah, fi ci réew mi yéen kabi di Le Quotidien ne xeex immigration clandestine mbëkk mi ñu ko fi ci waxtu wi le doon na lu jàmp lool te itamit nguur gi ne eh, taxaw na ngir jublu ci mu ngi ci yéen kabi Le Quotidien Le Peuple Quotidien ne nguur jot naa weddi gouvernement bi xibaar yi ñu fi doon rumbandaat ne fukki doomu jóge suux ca bokkam Abdou Karim Fofana leeral ne fukki domaine ak juróom benn ñoo ca faatu euh, mu ngi ci yéene kaabi di le yor yor Guinée ba léegi kenn xamagul la euh, suuxloo googule gal ca wokkam moom la ñu bëgg a xam bu ñu sukkandikoo ci yor yor gi yéene kaabi di di ñu xam lekk yeneen gaal yoo xamante ne am na ci ñetti bërëb yu wute yoo xamante ne waroon nañ faa jógee dem ca bitim réew waroon na yëpp ba fees del yéene cabinet gal waroon na jógee ca Saint-Louis am bu waroon na jógee ca Diogo ba ca Bargny waaye nag mujjee nañ gantal yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi di Sud Quotidien ci jamono joo xamante ne askan wi ne la ba yandoor ndax mbënd mi tàmbalee door ci gox yu bari nguur gi waxtaane na ko démb jël na matuwaay ngir itamit euh, taxaw askan wi ci mbënd mi Euh, faggu ci yéen kabi di euh, Sud Quotidien xëy duñu ko leeralal euh, source ne ci jamono joo xamante ne banlieue bu Ndakaaru ñu ngi dund coono ci grève woto tata yi liggéeykatu afti banque seen loxo ci diirug ñetti fan jur na njeexital ci wàllu dem beeg dikk bi foofee ca banlieue bu Ndakaaru am nañu coono am woto coono geneen jëm ci wàllu mbënn mi ña ngay xuus ci jamono ji ce nawet gi xootagul ña ngay woote wàllu ca banlieue bu Ndakaaru yenn kabi di stade xëy wutali al ne fa la fas yéene teri ji moom Sadio Mané mun na fa transféré waaye nag ci jamono ji ma ngi cay waxtaanee ca Japon gamu ne yéen cabinet Sadio Mané moomu le bu demee ci Arabie Saoudite Walf Quotidien ne mun nañu xayma payoram semaine bu jot dañ koy bëgg di fay lu toll ci ñeenti téeméeri million yu toftal ñaar fu ak ñeent yéen cabinet suñu lamb xëy duñu dégtal combat Ama Baldé Gris Bordeaux Pikine nee na ok ànd nañ ci waxtu gañ ko war a tëgg benn fan dëgg Ama Baldé Gris Bordeaux waaye nag euh, waa Fass ne anduñ ci dogal gii nga xamante moom la CNG jël jàpp combat gii ndax Gris Bordeaux ak ay ñoñam ñu ngi doon séntu combat googule ci weeru décembre wala boog janvier yéen kaabi di euh, Sud Quotidien xëy duñu fàttali kàngam ci métiem tasum xibaar mot na ñetti at gannaaw bu mu génne àddina ndem si yàlla Babacar Touré jiitu woon groupe Sud Communication yéen kaabi ne jiite woon fii tamit euh, Sénéra jota liggéey lu bëree bëri fii ci réewum Sénégal ba tax na Sud Quotidien moom la xëyee tey di ñu ko tàggewaat ndem si yàlla Babacar Touré dem na waaye nag du jóg ci xol yi